fois yaa ngi wax procès kan moo la wax ni dossier bi mën na dem procès. mais njort laa ci am rek. déedéet amoo ci njort am nga ci lu wóor. parce que yaa ngi koy wax di ko waxaat. déglu ma xanaa 34 ans parce que dossier non dossier boo xam ni <laughs> maître. macha allah fanweeri lu ne mën na ci am. pourquoi ngay insister ci procès procès fanweeri at ak ñeent. waaw nga nekk avocat. loolu war nga xam lu bari de xam dossier ni ñuy doxee. sans ma violer secret de l'institution sama nekk ci institution bi. mais ni ma gisee procès yi nga xam ni am nañu bañ a leeral da ngeen yóbbu tribunal parce que tax nañu wax nag boo a wax ci juge bi xanaa nag xanaa duñ ne dama ñibbi si kër mu jeex rek yow yàpp nga juge bi yàpp nga tribunal yàpp justice ba ne nga procureur yow comploteur nga aw ma wax ak yow yow juge bi am ma waxee ak yow mayu ma la nga dama laaj ay questions yoo xam ni sama intimité la alors que viol intimité la pam ngay Pape Ngagne pour yow doo wax nii bu ñu la ooyee ci affaire de viol intimité dañ lay laaj du ñu laaj xaalis boo sàcc du ñu laaj soupçon nangu du ñu laaj abus de confiance di détournement affaire intime lañ lay laaj. dama la laaj. dama viol kay lu intime la bu ñu lay laaj poser question juge bi ne la. li tax da ngay insister ci ma ne moom moo ni juge bi. mayuma la nga dama laaj loo xam ni. loolu. day laal sama intimité moo ko wax ma man man gënuma benn secret professionnel moom moo nii. secret de l'instruction génnewuma ko moom moo wax ne man maa ni je mayuma la nga dem a laaj loo xam dafay dugg sama sama intimité waa kooku xanaa kon tribunal la koy wax ëllëg boo ko waxul juge bi kay di ko wax keneen ko kan la ci sama xam-xam boo ci sama njàng juge bu fekkee laaj na la nga ne tontu woo mooy amuloo loo tontu ko amuloo loo tontu liñ la ji ki diree consent bu la waxee lii yaa ko def aji saa ne lii yaa def nee du ma ci tontu ah juge bi ni kon kat kii moom amul argument kon naa jóobal yëpp tribunal xam nga lu mu ci tontu El Hadj Diouf El Hadj def na li El Hadj def na li Paris El Hadj topp dañ ko lii est-ce que loolu mooy procès bi moom El Hadj man je suis pas concerné il veut créer une affaire dans l'affaire du ma ko may du maag moom day mot aji saar wax na ci explication bi ne man dama jommi. ma man Jalso may ñëw ndax moom confrontation bi bëggoon moom El Hadj Diouf la. parce que El Hadj Diouf la du attaqué. non moom moom non non non moom moom jàppul ni confrontation. Ah, dafa wax ni moom. ay ay maanaam dajale pour par pour toroxal benn doomu aadama. loolu lañ ci jublu non non non. boo defee loo xam dañ la war a euh, da nga foog ne ñu lay laaj toroxal la yaa ko teg sa bopp. comme yow li ñu mbir mi ne topp mbir mu xaw a sensible muy toroxal nit la xëy na kon yaa toroxal sa bopp xëy bu doon beneen procès la beneen façon infraction la dina laaj loolu. infraction viol de moom kuñ ko topp ku def dina laaj loolu ndax sëy ngeen ndax laal xale bi ndax def nga ko lii loolu mënuñu la ko bañ a laaj nga ne bu leen ma laaj loolu wala nga di ma ah, ñu laaj rek jël ko suufu jaamu fële nga paru wala da nga bu ñu la dénkoon loolu moo ko fi yóbbu ñu naan kenn indiwul preuve nañ jox non lieu yow non lieu boo yow nga yaakaar am non lieu moom daal yëpp na Macky Sall pour moom yëpp na Antoine Diome yëpp na juge bi yëpp na juge ba dee yàlla yàlla yërëm yëpp na ñëpp bàyyiwul kenn foo na ni ñëpp ko ragal ndax dañ ko doon tëj tëjuñu ko mu ne léegi non lii la war am tey def nañ conférence de presse léegi di euh, Bassirou Diomaye Faye suur ko léegi di ci ngoon bureau politique bu Pastef naan dañuy exiger non lieu moo tax ma di leen tontu tontu politique ndax dañuy exiger non lieu man suma parti ni non lieu mënu fee am ndax seen xam-xamu leader da leen wan ñi waa bureau politique Pastef la ñuy laaj non lii si seen seen leader nangul tontu juge bi nangul confrontation pour weddi ay aji wax parce que weddi wu aji saar wax nee na lii lii nga ma dem nga ne ko du ma la tontu. mais certificat médical bu ne viol amu ci. benn certificat médical bu ne viol amul eh waay Pape Ngagne juge rek moo mën a tudd viol certificat médical amul benn médecin bu ñëwee benn loolu dañuy toog seen xam nga waxe ko noonu benn médecin xam nga fu ñu ne fu ñu ne jaxasoo amu fa mooy viol amu fa non ne ma suñu wax médical bi loolu wax jaxasoo amul comme ni mu génnee lii lii dañ ko war a yóbbu ñu ñu seen euh, ADN bi bi liiroo certificat médical bi ñoom dañuy dañuy tëb phrase boobu des prélèvements ont été effectués en vue de test ADN kenn du ko liir te dañuy liir dañ koy liir dañu tëb phrase boobu saa yi manipulation bi bëri <laughs> waaye olof Njaay nee ku mos jàkkaarloo xam ne jëw a neex jëw yore sa téléphone walla sa say journaliste am say site internet naan la eh, xale bi caga la am na doom sax daaw déggoo woon loolu am na jëkkër déggoo woon loolu aji saar am na doom am na jëkkër cagala benn amu ci sit yëpp di ay xale bi cagala rek lu ne ñekk ko ko doomu jàmbur yaa ngi koy seen nii mu gisee xool ko sooful de mën a tax góor gu mënul téye boppam xalangu ko amul personnalité dëgg boo jëloon moom mais maître am nga fula fayda mais li ngay wax nii day tax ni xel